Eddie.

fii fii fii taxawal bu la seetlee cameraman la cameraman yi waaw waaw taxawal fii am si am seen. dëgg la fii la fii la waaw mais bu leen dem taxaw Abdou Khadir Abdou Khadir on va se mettre devant nous chef non non dañuy gars yi buñ. non. ñi si kanam da ngeen di sëg. yéen ñii fàttali est-ce que dangay sukk. yéen ñii fàttali ngeen di sukk. ñu may non non pas derrière derrière. sa gal bu wàcc de. caméra baa ngi jël jël sa portable. caméra baa ngi ci biir Eyvallah. donc nous gardons le de continuer avec Monsieur le Président et je prie le reste de nos invités de se diriger vers la cérémonie de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, Monsieur le Président. On peut aller à la salle de parole. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je vous en prie. Avem de. Ana gaay. Malik bari dafa yaa ngi wax. Malik génn ko ni bu ñu ko àccee bu ñu génn ñu. Waaw dafa am. Man yow man Malik jaaxal na ma quoi. Voilà.